mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam dangaa tële ngóor kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum diabète wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettiwaay ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor kàttan xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan waaye waaye ngi foofu fees mooy dafa déplacé wu ñëw fii dafa di la xaar loo wax li ngay wax kay mooy loolu. dogal non non doogaay kay amul mu toll damaa inscrire dama am compétition Paul fii moo war a def Liverpool yow laay xaar nag maa ngi dem aywa doogaay amul. bëggoon nga déglu ma. non non mënu la déglu. dama la doon mu nekk saa yi dañuy dem wala demul. waaw mais dama ko annulé. annulation moo fi amul. dama am condition fay sama xaalis tubaab bi ñu may xaar dama war a dama war a compétir Sénégal laa war a représenté nañ nañ def na nga am. mu mën a dégg mu mën a dégg mu mën a dégg jógal jógal jógal. déglu waaw saa waay da ngay jubóo jubóo. waaw déglu déglu déglu déglu bàyyi loolu bàyyi loolu bàyyi loolu. bàyyi loolu. waaw sa waay yow bàyyi maa nga am. bàyyi li ngay def waay. seetal ci yàlla seetal ci yàlla. li ngay def. xarit xarit force dóor. xarit force de da ngay xaar force xaar force. xaar force laa wax xaar force. mu ne xaar force ma jël mu ne. xaar force ma jël. waaw waaw. Koungkandé ak Kaolack nee na day repousser date bi moom ba léegi dafa am fit de ba léegi waxul ne annulé naa ko bàyyi naa totalement dama repousser date bi laa wax maanaam yow gàcc gi sëlam ñaay sax sangu la ginaar yi nga nar a tam xaritee laa yërëm naka la ñuy def ba xool waa koñ ba avant tout d'abord bon fête de tamxarit à tuuti maa ngi leen di sawdaat bu baax di leen ziar euh, di leen balu àq di leen baal àq ci euh, bés bu sell bi bés bu tedd bi di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal jàmm xam nga jeunesse su Afrique particulièrement Sénégal lii teeloon naa ko signalé bi coow li jollee teeloon naa ci def benn vidéo bu trois minutes mais am na ñoo xam ne d'accordu ñu woon ak man bi coow li jollee dëgg ne naa leen kii li muy wut mooy euh, buzz li muy wut mooy visibilité li muy wut mooy ku ko ràññee ku ko xàmmee yàlla def na nag am na ko mondialement buzz nga bëggoon am nga ko mondialement mais lenn rek moo ma naqari ci affaire yi mooy da perte totalement sa crédibilité perte nga totalement sa crédibilité actuellement kenn dootul la nawloo kenn joxatul la cër te balaa ngay xam li nga def nii nga génnaat yor at ñu tàllal la micro ngay wax yow xale bu ndaw bi nekk seen kër sax dootul la nawloo parce que lii dafa ñaaw dafa ñaaw ci image au Sénégal dafa ñaaw ci sa image yow ah yow doo n'importe qui yow doo man déedéet yow dafa am loo représenté parce que buñ la tuddee dañ ciy toftal sëriñ sëriñ su ndaw si la ñuy wax. ñu ngi la boole ci sëriñ su ndaw si mais yow lii lii lii lii lii noo koy nettalee lii yow looy wax léegi yow bu ñu la waxal looy wax mais man duma la balaame déedéet yow li nga bëggoon am nga ko atteindre nga sa objectif yow da nga bëggoon ñu xam la mondialement da nga bëggoon a def la les réseaux sociaux danga bëggoon a def la toile da nga bëggoon ñëpp hashtag la bravo maintenant ñëpp def nañu ko man jeunesse bi lay waxal ak journaliste yi jeunesse bi nga xam ne maanaam ba léegi conscient wuñ ci yenn yi lu ñëw yóbbaale leen ñoom jikkoy euh, jikkoy xob la ñu yor xob wu wow ngelaw bu ñëw rek buub leen xam nga kaawu kunkaande bii euh, du du du première yu demee nii yàgg na fi bu ñëwee ñaari fan ñett ñu coow ko ci réseau yi après falaas maa waxoon waxet mu jeex duñ ko ci topp dara Sénégal lu neex waay def lu neex waay wax du mujj fenn déedéet. yow li nga bëggoon am nga ko atteindre nga sa objectif ñëpp xam nañu la instant bi ngay gagné sa marketing xaw ma je ne man man xaw ma sax lu war a wax tellement que dama énervé ci kunkaande ba nga xam ne ni man je ne trouve pas les mots journaliste yi doole la nekk ay naaféq ay fiipar rapaj ay sayta